Yes, direct de ma chambre, je vais vous proposer un titre d'une de mes plus belles compositions. Dommage pour ceux qui ne parlent pas, qui ne comprennent pas Wolof. C'est un son qui parle euh, du mouridisme, Le son s'intitule Sagne que j'ai joué euh, dans une autre vibe, une autre version. Euh, bien ça tourne comme ça. Le Sensen n'est rien d'autre que le savoir-faire et la volonté accompagne la permission divine, le laisser aller, la liberté d'expression, des faits et gestes contrôlés par consentement. Avec le bon Dieu, le Tout-Puissant Allah. Et celui qui a su profiter de cette, cette offre, ce n'est personne d'autre que Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul maa borom bi gis dëgg xam dëgg wax yàlla may na ko gëkkële murit murit te kii yemale ñàkk ko am jëfe ndigal te bàyyi tere nangul ne yàlla buur bi kenn la rasulilaay mooy nabi ngeen gi yoneen sëriñ bamba mu morom yàlla wutalagu ko morom ilaa yaqaadalahu malam yakuni wala yakunu abadan li mumkin dëgg loolu xaadim rasul yàlla ki tax ne det na ko muy moom te kenn du moom si maamul waraas ri sañ-sañ la man-man la ngëm-ngëm la dëgg ci yàlla sëriñ bamba du koy juum yàlla muccal na ko ci ñuy juum nee na manay te mooy man kon yàlla may na ko lu mayul kenn te nu raxas xoli te baloo te xam ne noo bakku kenn ki nu bëgg ki nu bëgg ma ne su bëgg ba noppi bëgg lenn ki nu bëgg dafa bëgg dëgg te bëgg ñu bëgg ko ci ñeme dëgg waay ma waay ku wayul ma waay ki jara waay ndax ma waay dëkk bi ne am na borom te boromam amul morom bu ko nara wutal morom sa borom wala ne moo la moom ndax sëriñ bamba ci xol leneen da caa xajul ku fab leneen def ko ca da yàq xolam sañ-sañ rasool yàlla ki tax mu ne def la ngëm li mooy maa tey sunu borom li di ko dëkkee fasalam njàmbaar la dëkke wuyo mbàkke njàmbaar la la lantu nafsum jàmbala ana murit bi bëgg bamba ñëwul ñu dem ba Tuuba ba mu neex nu muhammadul mustafa siyaar sëñ Fallu siyaar Baay Laay siyaar sëñ Abdul Xaadir siyaar Baay Saaliw borom jamono te xam ne doole sëñ Bamba bari doole mbind mi rafetul te neex ci xol war a rafet te neex ci xolu képp kuy yeewoo ci réew mi di Sénégal ndax sëñ Bamba encore une fois maa ngi koy bamtu du japonais du américain du yougoslave sëñ Bamba sénégalais la jàmm la woote yoon wi ci yàlla di yoonu képp kuy jullit di bëgg te gëm te nangu ne Muhammadu Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mooy gën gi Bamba jàmm la woote kuddam jàmm la laaj kon Sénégal jàmm ak salaam salaam salaam bamba ñu may jàmm ak salaam murit